dañ fi euh, daje tey pour euh, inaugurer euh, bâtiment bi nga xamante ni moo nara a saytu ak faj képp ku am feebaru deret bu bu bu bi maanaam xeetu cancer ci deret mais aussi yeneen xeetu feebaru deret yi comme drépanocytose wala yeneen feebar yi nga xam ñu ngi koy gis ci médecine interne donc bâtiment bool boo xamante ni bu mucc ayib la ak ay matériels yu mucc ayib yoo xamante ni dina permettre ñu faj suñuy patients sénégalais ak patients yi dëkk dans la sous-région parce que batiment bi rek moo am en Afrique francophone pour ñu mën a faj xeetu feebar yi batiment bi nag ci ñetti niveau la foo xamante ni fa la ñuy xoole ndax malade bi apte na pour bokk ci traitement yooyu ci suuf dina di ngeen gis ni spécialité yëpp ñoo fi daje pour xool ndax malade bi buñ ko naree greffé dina ci génn wala déet une fois ñu sélectionné que dañuy yéeg ci kaw préparé ko defal ko chimiothérapie après nag ñu yéegaat ci kaw encore fekk na boobaa def nañu prélèvement wu cellule am yi pour mën ko ko greffer ëllëg looloo tax ñu tuddee ko autogreffe de cellule souche euh, hématopoïétique te lépp lu ci war comme matériel yàlla suturaal nañu état du Sénégal jàppale nañu ba nga xamante ni euh, financement vraiment complet de l'État du Sénégal pour ñu am batiment bu mucc ay bi nga xamante ni dinañ fi mën a traiter suñuy patients sénégalais mais également patients yi nga xamante ni ci yeneen dëkku Afrique yi la ñu nekk te te te amuñu xeetu technologie bi ñu bare soxla nañ ko ci xayma war nañu ëpp à peu près téeméer yuy rang xëy na di xaar yëfi démarré ñu mën leen ca boole mais encore une fois foog ñu saytu saytu leen ñoom xool ndax apt nañu pour recevoir ko ñu door leen koy defal euh, ci giir ba nga xamante ni dinañ ci mën a génn ak jàmm ak salaam. tey bésu mbégte la mbégte parce que kenn xalaatul woon ne Sénégal dina am lu mel nii euh, alhamdulilah rabbil bi nag bi ko président de la république xalaatee. jox ñu jumtukaay maanaam xaalis bi war pour ñu tabax ko loolu nag biñ koy tabax aussi ñun la naam mais bànqaasu ministère de la santé bi yëpp daf daf ñu ci jàppale ci wàllu xelal ci wàllu suivi ci wàllu appui même li manque woon sax mu dolliwaat ko ci pour que lépp mot mais yamul ci loolu rek daf ñu jàppale aussi ci formation personnelle bi formation personnelle bi tey jii nii am na ñoo xam ne ñu ngi leen di forme fii am na ñoo xam ne ñu ngi leen di former également bitim réew donc loolu yëpp pour wan pour bëgg bés bu malaat bi ñëwee fii ñu mën ko jël ci anam yi nga xam ne mooy anam yi gën anam yi yi mucc ayib euh, ba tax na tey jii nii lii dañ ci dañ ci dañ ciy kontaan lool euh, wax ne également que li jëm ci assistance médicale à la procréation maanaam waaye dencante waaye dencante yi nga xam ne dañu am jafe-jafe pour am tout tànk loolu aussi ci perspective li en attendant nag ñuy euh, installer équipement boobu tey jii nii première phase bi mooy technique d'insémination moom ñu ngi koy def fii depuis quelque depuis plus d'un an te am nañ ci satisfaction bu baax ndax am nañu 12 pour cent de taux de réussite te booy xool moyenne mondiale bi également 15 pour cent la di wax ne également hôpital Dalal Jàmm donte ndorteel li métti woon na lool mais tey jii alhamdulilahi rabbil alamin mën nañu wax ne fu ñu daan fu ñu doon séentu ñu ngi fay waaj egg des na mais ñu ngi fay waaj egg tey jii nii deuxième scanner monté nañ ko fii IRM mu ngi fii Euh, mammographe monté nañ ko fii li jëm également ci médecine euh, nucléaire nga xam ne également jumtukaay bu mucc ayib la dernière génération pour mën a gën a jàpp ci wàllu faj cancer également mu ngi fi am na également projet yoo xam ne teg nañ ko fi mooy prise en charge de la douleur ba loolu sax tey jii nii nit ñi dañ koy jàng ñu leen ci jox ay lijaasa université am na également unité de réadaptation cardiaque pour ñi nga xam ne dañoo amoon feebaru xol naka lañ leen di récupérer pour ñu mën a jëlaat seen activité correctement ak yeneen ak yeneen projet yoo xam ne ñu ngi ko fii ñu ngi ko fiy def te loolu lépp tey jii nii su ne am ci ndimbalu euh, ministère de la santé la euh, ak ci euh, clairvoyance su madame le ministre de la santé et de l'action sociale mais lépp également ñu delloo ko ndey mbi gi mooy président de la république son excellence Macky Sall. ñu bëri dañuy jàpp ne hôpital Dalal Jàmm maanaam hôpitalu patron yi la déedéet hôpital Dalal Jàmm hôpital public la day appliquer politique publique yi day jël yi day jël imputation budgétaire day jël leneen mais laata loolu lépp aussi euh, pendant que ñu ngi doon tabax bâtiment bi ñun tamit financier yi ñu ngi doon def ay simulation parce que li ciy dugg ci intrant xaw na bëri lool mais ñun lu ñu jàpp mooy que ne ñun dañuy faj te également bu ñu amul ku ñu faj suñu nekkin amatul solo donc dinañu def tout pour que ñi ñuy faj mën a faj ay nit te pour ñooñu ñu mën leen faj pour il faut ñu mën a yegsi ci biir hôpital bi donc dinañ ko yombal ba nga xam ne ne euh, bu ñu ñëwee dinañu faj léegi nag am na loo xam ne aussi mën ci ñàkk ndax du ñu ñooy euh, bépp garab boo xam ne dañ ko fiy defar wala am na loo xam ne dañ koy jéggaan bitim réew il faut ñu jël ko il faut que ñu fay ko mais en tout état de cause dinañu fexe daal ba sénégalais bi nga xam ne daal daan dem di fay cent million feneen ak feneen bu ñëwee fii ci hôpital Dalal Jàmm ñu wàññi ko ba mu xaw a sedd xam naa ne nag euh, autorité également également dinañ ci gën a mën a jàpp parce que ñoom it seen wàll mooy faj sénégalais yi te gis nañ ko ci programme yu bëri li jëm ci cancer bi gratuité yi yi jëm ci euh, accouchement euh, gis nañu également gratuité yi plan Sésame gis nañu gratuité donc loolu aussi defe nañ ne état du Sénégal dina ci bàyyi xel bu baax a baax pour que pañ mi gën a mën a ñoŋ gën a mën a également ñu mën ko defal sénégalais yi. tey dama ñëw tey fii ak mbégte mu rëy euh, di war ubbi. Euh, fi nga xamante ne moom la ñu tuddee euh, unité de greffe euh, de moelle osseuse mais également unité de thérapie cellulaire du ma dellu si waat ci li nga xamante ne techniquement professeur Farsamba Ndiaye wax na ko du ma dellu si waat ci li nga xamante ne sur le plan du management des service tey jii le directeur Moussa Sam Daf wax na ko te bi mu koy wax nee na mu ngi ci ànd ak conseil d'administration ak personnel de santé bi yëpp ak na ñu mënti toll ak fu ñu mënti nekk mais damay wax mbégte mi rëy gi mu rëy moom tey euh, lañu war a wax ndaxte lii xalaatoon nañ ko ñun jàngoon nañ ko xëj na boobaak léegi mat na fanweeri at mais ni ma ko waxee léegi professeur yi ñu fi fekk nga xamante ne ñoom itam ñu ngi leen di delloo seen wàccuwaay dañu doon euh, jàng ñu ñuy bindloo te duñu gis lan la ku di nekk si ñu bu ñu ko gisee dangaa génn Sénégal mais tey jii képp kuy jàng moo xam infirmier sage-femme moo xam médecin di nga gis li nga xam te moom ngay jàng loolu itam bu amee dañu war a taxaw gërëm bu baax ki nga xamante ne moo ko waral. ki nga xam ne bi ñu toogee ci biir Covid bi rek laa wax ne ne ko Sénégal mën na lii léeg nag day reetaan ma ne ko mën mooy lan ma ne ko mën mooy d'abord ki nga xam ne moo koy def. mooy personnel bi ma ne ko am nañ ko son excellence monsieur le président Macky Sall mu ne ma li ma ne ko li si des tam tamit gis naa ci sa vision ci plan Sénégal émergent nem nee nga lépp lu mënu émergence boo ko waxee dañ ko def ma ne ko équipement yi nag cher nañu parce que équipement yi day nekk équipement yoo xam ne day am ay normes doone rek maa ngi def lii Sénégal la yem gis nga ni ñu ko waxee lii bi ñu ko nammee def rek ba mu d'accordé moom jox ñu waawam léegi nag dafa am législation législation mooy naka la tëddee gis nga ne Sénégal li ñuy wax comité national de don et de transplantation amoon na fii depuis 2017 2018 mais dañ ñëwoon day rem ci roño ak li nga xamante ne mooy tax nit bu gis-gisam baaxatul mu def ko mooy li nga xam ne dañ koy joxaat beneen cornée loolu yëpp pare na mais bi itam bi ñu ko sumbee ne gis na avancé na dañ ne ah duñ ko teg ba pare di wëri ñu ne waat comité national de don et de transplantation delluwaat si seen liggéey wax dëgg yàlla ñu delluwaat si ànd ko ak secretariat général du gouvernement bi nga xam ne moo nekk primature ba ñooñu tey def nañ comité technique yëf yëpp nag jébbalaat nañ ko ki nga xamante ne moom mooy borom dëkk bi bu ñu ko adopté en conseil des ministres mu dem nag ci euh, feeñ wax assemblée nationale ñu adopté ko. te député yi tamit xam nga li ñuy wax rek ñooy député du peuple lépp loo xam ne tey askan wi soxla ne ko bu fa demee bu ñu ko seetee saytu ko bu baax ak commission des dinañ ko def donc ñun am nañu yaakaar ne fii. ci lu tolloog weer dina am lu bëri loo xam ne def nañ dañ ko fi def loo xam ne yéen ñi di ngeen ci teg seen bët population Sénégal nañ ci teg bëtam mais également sous région bi parce que Sénégal buy wax rek toujours du yem ci Sénégal day wax intégration africaine te wax nañ ko fii nag tey ci sous région ouest africaine ñun ñoo ko fi yoragum mais xam nga ne sénégalais léegi dañuy wax rek l'africain donc ñëpp dañ fi mën a faju si moo tax ki nga xamante ne seen naataango presse bi ko laajte am na solo santé loo fi gis dañ ko jënd donc mais état du Sénégal fii tey ñu toog def na fu ñu toll ak 1 milliard 500 donc képp kuy ñëw day sawar a ñëw démb Thiès wax naa leen ko 800 millions pour ubbi service d'aide euh, et des euh, des des urgences mooy SAV. ak feneen ak feneen gis nga ambulance bu ñu foonee mais waxuñu ne dañuy fëgg suñu dënd wax ni lépp am na déedéet parce que loolu bu boobaa àddina du neex àddina pour mu neex da ngay am liy kontaan mais naa wuri li tax ñeneen ñi di dem beneen dëkk tey ji yaakaar naa bu ñu fi jógee. wax nañ ko amul weer wu ma toog boo xamante ne woowuma leen ne leen xale bii dafa am cancer cancer wu deret naka la ñuy def fépp fu ñu xool ñu ne ñu 100 te 100 millions yi 100 millions la bokkul ak billet d'avion bi paas bi bokkul ak ki nga xamante ne dañuy jël ci moom def ci yow bokkul ak visa yi yéen a ma gën a xam ne fi mu nekk nii pour am visa ci àddina bi dafa doy waar. mais nag tey jii comme am nañ ko suñu dëkk économiste de la santé ñëpp ñoo xam ne seen xel màcc na ci. parce que lancé nañ jëm également comptabilité analytique bi nga xam ne ñu ngi koy def déjà ci fukki l'hôpital ak juróom wax ne lii lu tax mu jar lii xam nga seen caméra yi sa bos ak bosu keneen bokkuñu gis naa koo xam ne mu ngi filmer tey ak portable tey bu ngeen def li ñuy wax recouvrement des ko lan la tey photo bi image bi ngeen nar a génn ci man ñaata la jar moom li muy jar bokkul ak sa bos bi muy jar parce que yow xëy na sa après moo gën a cher kii appareil xëy na leneen xëy na yow bi tey am na ku la ko téyel kii amul bu ko ko téyel donc loolu mooy recouvrement de ku te loolu itam Sénégal def ci teel a jóg dañ ne les yi nga xamante ne mooy xale tuuti tànk yi bu juróomi at jigéen ñi nga xam ne dañ leen teg war a def césarienne bu ñu ëmbee mag ñi nga xamante ne liggéey nañ jox nañ lépp seen dëkk ak seen askan muy personne agé à partir de juróom benn fukki at jëm ci li kaw loolu wax nañ ne am na gratuité fekkoon fi nag bu yàgg ba léegi tuberculose kenn du fa am di faju di faju ba pare ñuy fay maladie tropicale négligée kenn du fay ak yeneen ak yeneen la liste est longu mais des na encore mais moo tax tey dañ ñi nga xam ne ñoo ci des moo tax acteurs communautaires yi tey nga xam ne am na relais am na bàjjenu gox fu ngeen dem ci àddina gis ma ànd ak ñoom xam nga lu tax parce que bu ñu jógee fii dinañ ne nit ñi man kat ci daayira bi ma bokk mankat ci association bi ma bokk mankat fee ci jumaa ji nga xam ne falaay laay mankat man fee ci église bi nga xam ne fa dem dimanche nañu toog waxtaan. nañ waxtaan ci biir waxtaan wi nañ ne ah paj mi bu ngeen buggee mu ñoŋ nañ leen def yëg lii mooy dugg ci mutuelle de santé yi. moo tax tey gis nga léegi bàyyi nañ mutuelle ku jog rek ñetti xarit def mutuelle léegi ay mutuelle départementale lañ donc damay ñaan tey Sénégal yi nga xamante ne amuñu benn. kuréel goo xam ne mooy tax paj mi yomb si ñoom ñu dugg ci mutuel yi bu ngeen duggee ci mutuel yi dangeen di wóolantente léeg-léeg ma leen di dugal ci mutuel mu ne damay ragal a cotiser kenn lekk xaalis ba mais bu lekkee xaalis bi ngeen tëj frontière yi du du rëcc nañ toog fii liggéey suñu dëkk man daal loolu ci loolu laa leen mën a wax di wax rek ne kontante bi ñu am tey mbégte mi am na fu mu commencé mais amul foo xam ne yem na fa parce que euh, directeur bi wax na ko tey jii dañu bëgg hôpital Dalal Jàmm nekk niveau 4 foofu nag xam naa mooy niveau bi gën a rëy moom ngeen di dégg moom la Saint-Louis nar am moom ngeen dégg moom la polyclinique hôpital principal nar a am. mais loolu pour loolu am lii am na fi mais également tey bu ngeen génnee léegi dugg ci biir di ngeen gis am na fi donc niveau 4 nekkul rek niveau bu ñuy tiitaroo mais day am ci jumtukaay mais également am ci personnel boo xamante ne ak fu mun ti toll dañ koy liggéeyee loolu daal buggoon naa wax tey pour wax ne commencement la mais ñun ñëpp nañ ci jàpp état jóg na. te xam nga état bu jógee def lu toll 1 milliard 500 tey képp kuy xaritu état tey di nga sawar pour ñëw donc ñu ñaan yàlla jàmm rek am Sénégal ba nga xamante ne képp ku fi doon ñëw di nga ñëw mais également boo ñu mënee doole ay xaritam nga dolliwaat ñu.